yéen kaay yeeg El Hadj Malick ñu doore kook l'observateur maa ngi seenam kuy de waaye dafa mel ni dañuy wax ci euh, njëg yi ñu wàññi. waaw bala ñoo jëm ci kuy yi wax ci li ànd ak kuy yi mu daal di ñëw nag moom l'observateur ci prix de consolation maanaam daal démb euh, gouvernement bu bees bi wax nañu njëg yi nga xamante ni wàññi nañ ko l'observateur prix de consolation maanaam daal njëg yu nga xamante ni xaw naa dalal xelu ñenn ci askan bi les acrobaties de l'État euh, nguur gi naka la ñu def ba wàññi loolu mu ngi ci biir les compromis des acteurs ñi nga xam ne ñoom lañ ko seqal muy acteurs yi tamit nan la ñu def ba daal euh, ñu déggoo ci yenn prix yi les inquiétudes des boulangers boulanger yi ñoom nee nañu daal am nañu tuuti njàqare ndax njëgu fëriñ gi wàññeekuwul ba pare ñu wàññi loolu njëgu mburu gi les réserves des commercant am na ci commercant yi nga xamante nii nag wàññi gi moom daanaka daal kontaan euh, kontaanuñu ci dara ñu daal di ñëw nag ci fête bi nga xamante ni moom moo tëj bopp góorlu yu bari ñu ci mel ni Cheikh Tidiane Ndiaye euh, euh, Cheikh Tidiane Diawo mouton volé la veille de la tabaski am ci nag ñu nga xamante seeni xar dañ koy sàcc tabaski gune <laughs> kii nag moom li nga xam ne loolu la def nee na ginnaaw dañ ma sàcce sàcce sàcc ba xamatuma nu may def léegi ca biir douche ba laay jël tëj fëg li nga xam ne moo di xar mi bu ko defee kenn du ko laal daal di fanaan ci buntu salle de bain bi loolu moom xam naa ni baax na ci ñu daal di ñëw ci affectation des terrains à des promoteurs immobiliers ministre de l'urbanisme jël na li nga xamante ni moo di assiette foncière bu mbuurkat bi euh, ci secretaire général du gouvernement présision euh, indi na ci ay leeral moom Balla Moussa Fofana après la sorti de Ahmadou Al Amin Lo euh, ñu daal di ñëw ci ma Khoudia Keita bassiste xam naa mooy Euh, ki nga xamante nii dafay guitare waaw bassiste mooy kuy guitare voilà mu daal di ñëw mu ni j'ai vécu de harcèlements sexuels moom nag boo ko xoolee dafa nekk puune nee na euh, ñu bari ñi nga xamante ni nii daal dañ koy bëgg di sàkku dañuy wax ne li nga xam ne mooy puune bu fekkee ni da nga seq ak moom dafay daal di yokk sa buntu wërsëg loolu nag tax na ñu bari di ko def lu mu tuddee harcèlement sexuel nee na nag moom gisul différence entre moom ak yeneen nit ñi mm. énergie fiche de partage des retombées du pétrole pétrole bi naka lañ ko séddalee loolu yi tamit euh, l'observateur wax na ci. Ferry de foot Mbour Petite Côte loolu mooy finale coupe du Sénégal ñu bari xamuñu leen. très bien ñu dem ci enquête. les non-dits d'une sale affaire guerre de manganèse manganèse bi nag am na guerre bu métti bu nga xamante ni indi na ko euh, ci diggante indien yi ak li nga xam ne mooy Sénégal mesure d'allègement du coût de la vie euh, l'État part au plus urgent mu mel ni fi mu nekk nii euh, semaine prochaine ci la njëg yooyu nag du daal di tey tey tey lañ koy wàññi am na ñi nga xam ne dañuy dem boutique ba commencé xuloog borom boutique ba te loolu kenn waxu ko semaine prochaine. apurement des dettes aux prestataires de soins loolu tamit ñëw na ci contre l'extrême droite de France franc yi nee nañu euh, ñoom dañuy manifester. aywa très rapidement mu gaaw ñu dem ci libération El Hadj Malick. Petrosen ci wàllu pétrole bi nga xam ne feeñ na moom leb na. huit cent quatre vingt quatre virgule quatre vingt dix neuf millions de dollars ci euh, ñetti opérateurs yi première baisse des prix des denrées l' état mobilise cinquante trois milliards moom la état jël daal di koy dugal ci gafaka gi bu ko defee njëkki mën a wàññeeku. la tribune la tribune ñëw na ci baisse euh, de l' augmentation des prix mu ni une baisse insignifiante neen daal wàññi nañu waaye wàññi gi taxu koo demee noonu. Mm. nee nañu nag également augmentation des prix une vraie fausse réduction. du coût de la vie mu mel ni daal loolu dañoo sëlëm gars yi loolu la jàpp. ñu dem ci Walf Quotidien. Walf Quotidien baisse des prix moom tamit les consuméristes restent sur leur faim mu mel ni daal ñu bari ci ñi nga xamante ni nii ñoom ñooy quinze consuméristes yi daal euh, njëg gi euh, xaw na leen euh, daal tey seen xel. Mm-hmm. bés bi le jour lu mu wax. bés bi le jour prix du riz du sucre de l'huile et du ciment donc yooyu yëpp wàññi nañu ko mu mel ni tension bi xaw naa wàcc ci jamono yi. ñoo dem ci Vox Pop. Euh, euh, de la vie l'État impose la baisse des denrées de première nécessité mu mel ni daal euh, promesse électorale bu nga xamante ni defoon nañ ko tax nañu wàññi ci ceeb bi ñeenti dërëm dëwlin ji ñaar fukki dërëm euh, mburu mi ñetti dërëm suukar si euh, fukki dërëm ñu daal di ñëw le vrai budget derrière les sept cent milliards loolu yi tamit euh, finance publique la am na lu nga xamante ni nii wax nañ ci El Malick dénonce une augmentation irrégulière contraire à l'esprit de solidarité de dépenses flambée des prix du transport mu mel ni daal njëg yi nga xam ne ñu ngi koy yokk ci dem beeg dikk bi te nit ñi war a julli ji loolu yi tamit doy na waar lii nag moom jar naa taxaw muy direction générale de l'ANAMO El Hadj Malick Mbaye dafa démissionné ba pare nee na avantage yi mu am yépp da koy delloo moom moo xam ay avantage la ak i tamit passeport diplomatique ba loolee nag raar na ndax ñu bari dañuy xaar ba ñu sepp seen ndox seen loxo ci ndab li ñu daal di soog démissionne mais moom xaaru ko fa nee na am na beneen mission bu koy xaar ca loolee la dem asgor la baisse des prix des produits et services de consommation promesse honorée mu mel ni état bi la mu diggee woon askan bi ca campagne ba def na ko wàññi na ko. ñu dem ci tàggat yaram ak record. record mi ngi ñëw ci li nga xamante ni nii nag mooy coupe du Sénégal demi-finale les Pélicans brisent le rêve de la vieille dame mu mel ni daal waa euh, Mbour Petite Côte euh, ñi nga xam ne waa Jeanne de Dakar moom lañ doon gént pour dem finale daal nañ koy daal di tour seen yalwaan finale 100 pour cent amateur et sans Dakar Dakar bokku ci. euro tey jii lay commencer Écosse euh, ak Allemagne ñoom ñooy ubbi démarrage bu nga xamante ni nii ñëpp a ngi koy xaar peu utiliser en sélection et relégué mu mel ni Formose. ak ñaxate ñoom seen club dafa wàcc ci euh, selection nationale bi dañu leen di woo ñu tudde leen ay sireur de banc maanaam du ñu mës di football ndax loolu du am njeexital ci seen carrière waaye ki nga xamante ni carrière am ngi xalaat mu gën a jëm ca kanam mooy Lamine Camara élu pépite de la saison. Mhm. jaajëf waay. ñoo dem ci moomu moom la ñu indiwaat le lion Lamine Camara. dévore tout moom daal dafa mel ni saison bi macha allah bit bu gën a rafet waaye tamit xale bi nga xam ne am nañu ci moom yaakaar yàlla na ko yàlla la fal cat les lions connaîtront leurs adversaires le 4 juillet loolu mi ngi jëm ci éliminatoire CAN cinq euro première journée Allemagne Écosse ñoom ñooy ubbi baal bi mm-hmm. aywa sunu làmb suñu làmb mi ngi ñëw ci guy gi moom fi mu nekk nii digganteem ak Ada Fass nee ko nag moom guy gi gagné mbaa dugg ci saako yi ki nga xam ne mooy Ibulaay production taxawal na combat bu neex muy combat espoir Pape mbay 2 Dame Sène le 6 juillet lay doon. Mhm. jërëjëf El Hadj Malick tey dafa mel ne ma revue de presse euh, nekk fi sunu grand moo tax Mor mhm. journaux yi bëriwul depuis voilà j'ai pas. Euh,